atum 2001 euh, ñaar fukki fan ak juróom la ñu bari jàpp ndax ca booba bés lañu ko jébbal borom bi subhaanahu wa taala euh, gannaaw nag bés bi mu làqoo woon dellusiwaat na ñu fas yéene dellusiwaat ci dundam waaye itam dellusi ci taxawaay bi mu amoon ci réew mi en tant que citoyen mais également en tant que kilifa diine ñu am mbégte mu rëy nag dalal ci Laye Seydina Issa Laye Diop bokk ci cellule communication bu communauté layène ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm Laye Mactar di ak waxtaan wi. maa ngi leen di fay Fatou euh, di leen sant di jiital nag sant suñu borom bu subhaanahu wa taala di julli ci yonentam bi maam Seydina Limaam Mahdi salaatu wa mi nga xam ne moo ne woon maa doon Awlin wa Seydi Aaxir di ziare suñu xalifa bu tedd di fi nekk ñu di ko wax Seydina Mouhamadou Makhtar Raji doom bàyyi Seydina Mandione waaye tamit di rakk ci kii nga xam ne moom nga damay laaj muy Seydina Maam Alassane. jërëjëf yow itam uh, ñu ngi lay uh, gërëm. Uh, ni ma ko waxee ñaar fukki at ak ñaar gannaaw bi xalifa bu tedd ba làkkoo. xale yi juddu ci ginnaawam tey buñ la ne woon kanay Seydina Maam Alassane Thiaw Laye loo leen di wax. Ah, li ñu leen di wax xanaa wax leen Seydina Maam Alassane Laye mu ngi gane àdduna mille neuf cent quinze. génn àdduna 2001 le 24 avril euh, di doom ci Seydina Mandione Laye nekkoon tamit ñeenteel bi xalifa maam Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wassalaam waaye ginnaaw bi ko Seydina Mandione juree saahibul kiram di borom yërmande jëf Roowalaay Isaa di premier xalifa mooy ki yar ci loxo boppam waaw mu uh, juddoo nag ca yëmbal waajuram bu jigéen di soxna Fatlaay Jóob di doomu maam Malick Jóob kay doomu Jali Bëkk ba nekkoon Sëriñ Ndakaaru kooku mooy waajuram bu jigéen Fatlaay Jóob waaye hmm. Seydina Mandione nag di ñaareelu xalifa rapport walaay Isaa di doomu maam Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam mooy waajuram kooku mooy uh, Seydina Maam euh, Alassane caw mi ñuy waxtaanee tey uh, mu làqu atum 2001 euh, ni ñu ko waxee waaye mm-hmm. loo ñu mun a wax ci xalifa bi bu weesoo xëy na euh, way jur yeeg xilaafa gi ba mu ci toogee lan la def ci yoonu maam Seydina Limaamu Laay wi mu rëdd waaye itam taxawaayam ci communauté laayeen bi lan la woon ba muy xalif ak xëy na la taamu koo doon sax bu bu boo ca waaw moom Euh, li mu li mu bi mu laata nekk xalif dafa am lu mu royoon ci bayam bu tedd ba Seydina Mandione ma nga xam dafa toppoon magam ju tedd ja Roowalaay Isaa premier xalif quarante ans ñeent fukki at hmm. ba mel ni bokk ñu bàyyi nekk ab taalibe ci moom euh, moom mu di ab sangam loolu nag moom la roy ci bi nga xam ne bi magam moo fi toog xalifa di premier set muy Baye Seydi Thiaw ñu tuddee Seyna Issa premier xalif moom daf ko topp ba xam ne euh, bu féetee yoof mu féetee yoof bu féetee Cambérène bu féetee Cambérène moo tax mu amoon ci biir kër gu mag ci Cambérène këram gu ndaw yor fa soxna fii ci yoof mu nekk ci këram bu xëyee su bëggu jot dina dem ñuyu ji xalifa bi soog delluwaat këram feneen fu mu nar a demit dans la journée da daan tàggoo bala muy dem ndax man nii di wax ak yow daanaa ko jël ay jamono mu daan dem euh, hôpital daan teg hmm. di faju ci orthopédie hmm. professeur Seydina Sey hmm. maa daan yóbbu waaye bala muy dem dina taxaw ci buntu kër xalifa bi tàggoo nekk maa ngi dem hôpital boo demee ba ñëw dina wàccaat ñëw nekk dem naa ba ñëw ci koo xam ne kii magelu doom bàyyi la la xalifa bi magel ndax kooku quatorze judd waaye cër ba mu ko jox bi ci des it daanaa ànd moom muy dem ci néegum ndeyam ay réunion weer wu jot daanañ dem Derklé daanañ dem jëppal daanañ dem yëmbal waaye balaa muy dem dina dem ba ci xalifa bi tàggu ko nekk maa ngi dem réunion bu demee ba ñëw dina wàccaat ne xalifa bi dem naa ko bu demul fen nag suba gu xëyee dina dem nuyoo ji soog a ñëwaat toog mm. loolu wane na ko ci model ci wàllu roy waaye ci toppe mm-hmm. ndax kër gi toppe la waaye mu doon nekk ci bàyyam Seydina mu ngeen ñu topp quarante ans mm-hmm. Seydina Issa Rohou mm-hmm. waaw bu xalifa bi déplacé woo dem Cambérène mu déplacé wu même bu amul moyen de transport dina wut ku ko yóbbu mu mu mu dugg ci oto dem fekki xalifa bi te xalifa bi yor waaye du boo xanteek moom ci otoom di raay dina ko fekke ji bu amulee dina jaar tefes loolu bàyyam da ko daan def ci seen moom nag loolu doon na def ay moyens ba ñëw fekk ci bu xalifa bi delloo yoof mu jóge Cambérène fekk ko yoof loolu daal gis nañu mu dekk waaye bi nga nag moom toog na xalifa euh, muy le treize euh, jëm le quatorze octobre euh, mille neuf cent quatre-vingt-sept ci toog xalifa wutu fa magam jooju jël Abdoulaye rakkam uuf ko mu nekk loxom ndax seen bàyyi roowalaay lay moo leen boole woon bés nekk raan jàppal sa rakk Ablaay jàppal sa mag waaw nekk na kan nga àgg ci njomboxtal la moom mi moo la fay àggal hmm. ndeketoo loola wax jooja moo wéy ba bi mu fi toogee xalifa bay génn àdduna mu jox témoin bi rakkam jooju di Seydina Abdoulaye ginnaaw ba mu ñaanee ba suñ borom nangu ko mu ne sant naa suñ borom mm-hmm. ndax Ablaye dina toog xalifa àla kuliyali mm-hmm. waaw léegi nag mu toog quatre-vingt-sept boobu 4 novembre 87 nekk premier événement bi gàmm mm-hmm. mu jiite xilaafa bi ginnaaw bi nag wër na dëkk yi pour nemmeeku taalibe yi fii ba Tëngéej ak ay Ngor ak Wakaam ak Euh, Pikine nag partout def na mhm. naka magam ja defe woon ba muy sogo toog moom ci ginnaaw loolu nag mu am benn événement majeur <clears throat> à partir de 1989 fekk mu ngi un peu moins de deux ans ci xilaafa gi mhm. euh, problème mu Mauritanie ak Sénégal am euh, muy histoire boobu demoon ba jur ay massacre maanaam ay rayante ba loolu fi jële suñ mbokki naar yi yoroon bitik yi fii ci Sénégal hmm. loolu nag Rowalaay Issa baayam moo feeñu soxna suñu wax Adja soxna Soose Seck waaye dëkkoon ci LG de Mbaaw yóbbante ko ci maam raat moom di doon xalifa sëñ hmm. Maam nañu dem Ndingala ci guy ga ñu ñaan fa yii ñaan lañ fay ñaan yii sikkar lañ fay sikkar buñ paree nañ ko tëjee ji ci sama xabru Hmm. looloo eh, aji soxna soose daal di ñëw wax yóbbante bi maamraan maamraan wax que mag ñi ñu woote ndaje foofa ca kii ba ca ndingal hmm. daal fay def loolu niñ ko waxee bés boobu la rey fii ci Sénégal rey a arrêté fële ci Mauritanie hmm. mbir ma daal di sedd loolu bokk na ci kii waaw mu mu mu waxoon tamit ci weeru koor woowu ne incha allah kera muy sotti benn laayeen du dee du du du du fële ca Mauritanie ca Mauritanie hmm. te na mu ko waxee it noonu la suñ borom ba fekk ci ka ndax eh, yàlla dogal na ab ñaankat la woon hmm. ku yàlla nangu woon ak ñaanam hmm. <coughs> bokkoon na ci it muy sax nekk xalifa moom la yàlla jagleeloon mu doon changé càngaayu maamam Seydina Limaamu Laay foofu ca jàmmalaay taa moom ci bor gi mhm. avant ñu koy tëj de manière définitive mhm. pendant des années moom moo doon changé càngaay li périodiquement mhm. ubbi bàmmeel bi fekk fa maamam muy jëmm ju tedd ak tippi tippi yi nekk ci ci bi ak couche multicolore bi nekk ci bàmmeel bi mu mu changé càngaayam ba mu ko tëj définitivement bi mu bi mu laata nekk xalifa tamit dafa jàng métier maçon ba nekk maître maçon. waaw ñoom ñoo defar trottoir yi nga xam ne mooy rebori xeeri weex yi. jalonné hmm. bi tàmbalee euh, fële aéroport. Hmm. ba ni mu àggeen fële ci Malick si Ndakaar. Hmm. moo tabax tamit xabru maama en 1953 jàmbalaay. ci format bu njëkk bi ñu modifié en 96. moo tabax tamit xabru baayam Seydina Issa Roolay ci mm. Cambérène mm. moo tabax xabru baayam Seydina Mandione ci Yoff waaye bi mu nekkee xalifa tamit en quatre-vingt-seize muy quarante trois ans après mm. moom moo tabaxaat ci xilaafam euh, moo joxe ndigal ak plan ñu tabaxaat xabru maam di tey di jàmmale mm-hmm. waaw waaw mu jàngal mu jàngal ñu bari métier mooma ñu koy exercer aussi fu ne ci Afrique euh, kon xalifa bu am métier moom la ñuy waxtaanee. xalifa bu am métier la effectivement. dafa liggéey ba doon mm. fay ku pension. Mm-hmm. Euh, à la fin de sa carrière. Mm. pension boobu ñu ngi ko doon domicilier à la BIAO de Pikine. Mm. ok waaw kooku mooy Mamraan moom la ñuy waxtaanee particularitéem itam mooy Seydina Isa Rawulahi ci boppam moo ko jàngal alquran. moo ko jàngal moo ko moo ko yar ci loxol boppam. Mm. ba melloo ko ni mu mel. moo taxoon mu nekk quelqu'un boo xam ne bi euh, attaché à la doctrine de Seydina Limaamu Laay alayhi mm. ba pare nekkoon ko xam ne ki un conservateur je dirais waaw. maanaam diina ji ni mu war a doxi dëgg dëgg dëgg ndax xamoon mag ñi la ku leen toppoon la waaye tamit ku leen déggaloon la waaye ku nangu kilifteef la ndax yëmbal gëla nga waajuram bàyyi koo def bàjjan Fatla Diop ña doon ay càmmañam di kanu ay ndijaayam da joxoon ci rek ci wàllu mbokk ku bëggoon mbokk la tamit ak fu mbokk ma nekk ak lu mu sori sori wala même bu mbokk ma dafa nekk ci beneen këru diina mm. looloo waral diggante si mi fi ne borom daara ja kooku mu di la ci moom ndax ñoo ñoo bokk ca kër soxna Fall Seck gële ca mbaaw hmm. waaw moom it mu jox ko cër cër euh, ndijaay hmm. euh, waaye également mu fekk magam Baye Sidi caw doon wax sëñ Abdoul Ahad ak sëñ Abdou Aziz di leen wax baay moom it mu leen di wax baay hmm. te ndaxam mageel gu néew la ndax sëñ Abdoul Ahad quatorze juddu moom mu judd quinze waaye Baye Abdou Lahad la doon wax quatre la judd moom mu judd quinze onze ans la ko màggee kon frère am rek la ci ay at waaye da ko doon wax Baye ndax lan hmm. ndax ñoom dañoo toog toogaayu sët hmm. kële jëlee toog toogaayu doom hmm. waaw loolaa tax mu jox ko mu joxe boobu cër alors maam maam Rane ñu ko doon tuddee itam le bâtisseur euh, bokk na ci li ko wutale xëy na ak kilifa diine yu bari mooy métier mi ñu doon wax sànq ndax nekk kilifa diine wala bokk ci njabootu diine ba pare am métier mu mel ni métier maçon di ko exercer di dem di tabax loola lu lu lu raar la woon lay Seydina naa Laye Diop di nga ci d'accord ak man tey nekkutu fi waaye naka ngeen koy gisee ci modèle boobu mu doonoon est-ce que am na ñoo xam ne ci communauté bi ñu ngi ciy inspiré wu euh, pour di mën a euh, xëy na boole Euh, diine ji ak am métier ndax loola nañ ko wax lu raar la tey ci ci réew mi ku fi ne kilifa diine xëy na da ngay toog taalibay wër la waaye jóg di daan doole moom néew nañu di ko gis ci ci ab kilifa diine ci Sénégal. waaw moom day wax dëgg yàlla modèle la ci ndax boroom xalima la woon wax dañ ko daan fekk ci di ko ñaanloo muy ñaanal ay doomu aadama te du leen laaj dara. Hmm. waaw loo ko jox de amaana yaa yëkkati dox ko mu nangu ko tegoo ci loxoom comme tamit nit daana daana ñaanal nit waaye am lu ko yàlla xam ndax borom xam loo ndax borom basira la nga bëgg a sa nafa wala sa poche pour jox ko mun la bu mu génn hmm. jógal dem nekkoon na tamit kon ci métier googu nag euh, laa laa bëgg wax sax bala ma ci li ma doon bëgg wax. Hmm. métier googu laa wax ne xam nga yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla subhaanahu wa taala sax. Hmm. dañoo amoon ay métier. dëgg ndax yonent yàlla Adama bu la woon. yonte yàlla Ibrahima mas Ibrahima la woon kon ay métier nit ñi dañ ko doon am ndax yonte yàlla Mohamed démb ca Makkatul Mukarram lu jiitu risaala bi wàcc commerçant la woon mm-hmm. te dañ ko embauché woon jigéen ak embauché woon mu soxna Xadija moom xam moom mu jël soxna mm-hmm. waaw maamam Seydina Limaamu Laay bi mu dellu see fii ñaari métier la amoon bay toolu xam sant fii ci maris ak napp daan dem diggante gi ci géej mu nga noppee def yooyu exercer loolu ba xam ne euh, woote na woote bi ne yàllaa ma yónni ci la soog a teg suuf kon nag magam Baye Seydi Thiaw dafa nekkoon navigateur daraan daraan dem ci géej gi bàyyam Seydina Mañoon daana dem yor fitalam di fital ay picc di koy dunde daana yor mbaalam mhm. moom tamit du jiiti muy woote muy nekk xalifa daana yor mbaalam dem di di kon nga xam ne nekk sëriñ terewul nga am métier daan sa doole liggéey ci sa ñaq am loo dunde ak loo dunde sak njaboot mm-hmm. leneen lu ñëw fekk la fa nag nekk xéewal waaw loolu wane na ko lu juuti muy wax dëgg yàlla di mm-hmm. nekk xalifa mm-hmm. waaw bi mu nekkee xalifa nag la soog toog ndax foofu dëju na ndax dëj nañ ko mu yore kaala gi toogal fi maamam waaye uuf njaboot gi uuf taalibe yi mm. yemale ñëpp bëgg timit yoof mm-hmm. mi di ay bokkam ndax lu jiitu muy toog daana dem yoof mm. ñu gestu gis ko ci mu julli ci seen ginnaaw mm. ñu sëlmal gis ko daana defit bu koy waa yoof soxlaa du nangu ñu fekk ko Cambérène ndax Cambérène dëkkuway dëkkuway gàddaay la de yoof gii nga xam ne ñoo ko soxla da di jox ci kër ga ca yoof waxtaan ak ñoom ci biir bokk yoof tamit bi ñu soxlaa seen tool yii nga xam ne mooy Ouest Foire ak zone boobu yëpp moom moo leen permettre en relation ak le président Abdou Diouf ba euh, ñu accepter euh, les titres de propriété euh, coutumiers nga xam ne moom ci boppam daf ci daan apposé signature am le jaraaf apposé ci signature le le le ndey ji le saltigi kon ak le président des frais ñooñ ñëpp di dignitaires yi dañ ciy apposé seen signature pour attester ne tool bii kat tàmbalee fii ba fii ba fi famille diw diw moo ko moom. Hmm. su ko defee ak njabootam man koo morcelé jaay ko loolu le président Abdou Diouf daf ka kaa accepté woon daf kaa hmm. nangu lool moo waral suuf soosu yëpp nekk Ouest Foire hmm. ñoom doomi Yoff seeni waajur moomoon ko ñu jaay ko. moo également dimbali yoof bañ def extension de yoof mooy li ñuy wooyee APEX si tey mhm. foofu tamit trente cinq titres fonciers la woon Abdou Diouf moo def un décret pour exproprier ko jël leen dénk ka waa APEX APEX mooy agence de promotion économique et sociale de yoof mhm. jël leen li dox ko nit ñi moo tax tey jii yoof yokku ba sës Nord ba sës ci armée bi mm. <clears throat> muy APEX 1 ak APEX 2 ak APEX 3 ak euh, euh, kii bi nga xam ne bii euh, moom lañ doon wooyee ak encore sax mm. zone écologique waaw kay mm. waaw loolu yëpp Membrane moo leen koy jënd également Membrane moo lijjanti. ba ñu am l'extension de Cambérène mooy fi ñuy woowee tey Cambérène hmm. mu yokke woon ko Cambérène pour doomi Cambérène yi génn seen i kër bàyyi dem am seen i kër yi hmm. xam naa na ñoo xamul la leen maa doon defal ba tax ñu yàkkam kenn ña ci bëri ñu ci ëpp jaay seen tere terrain hmm. ay jàmbur dëkki ko ba tey jii lépp lu leen naqari ci dëkk boobu c'est parce que ñoom ñoo jaay seen suuf loolu maam raan lijjantil na euh, Cambérène kem ni mu lijjantilee waa waaw Mamrane mi ñuy waxtaanee itam def na lu rëy ci Sénégal euh, ba xëy na jigéen ñi mën a am tey place bi ñu am ci wàllum njàng ndax euh, bokk na ci kii euh, participer bu baax a baax ci campagne nationale pour la scolarisation des jeunes fii du Sénégal lancement campagne ba amoon ca Fatick atum 95 mu àndoon ci ak président Abdou Diouf kon tey bu jigéen ñi tollee fii ci njàng war nañ cee sant Mamrane. war ci fànn googu waaye également dialogue islamo-chrétien bi également war nañ ko cee mm. ndax lu mu donn ci baayam na Issa la mm. ndax na benn euh, ëpp ngin boo xam ne bi mm-hmm. gis nañ mu toog ci kaw tribune ba ak son ces deux turbans noir et blanc en tant que xalif général des Layènes mm-hmm. mu toog ci tribune ba foofu ci ëpp ngin loolu tamit lu lu lu lu rëy ci def tamit élection yi xam nañ ne 93. Hmm. métti woon na ndax ci lañ lay maîtriser. waaw waaye keroog bi muy bi muy wax fii ci appel bi. Hmm. daf ne ndax carte yoo xam ni balaa ëllëg ñu taal ko. Hmm. sànni ko ndax lool jar na faat bakkan. na mu ko waxee woon nag noonu la faat bakkan am ci lañ lay maîtriser te ba mu ko yore rayaguñ ko. waaw kon ba ba l'an 2000 tamit fi la fekk dafa woo Ablaye Wade woo Abdou Diouf. woo Moustapha Niass woo Dansoko wo ñi fi nekkoon ay candidat ñëpp waxtaan ak ñoom ci ne réew mi ñun ñoo moom te waruñu ko taal daaj leen woo ci dal woo leen ci responsabilité woo leen ci citoyenneté loola tamit ñaan dolli ca waaw ndax am na côté goo xam ne kii dafa dem jàmmalaay ñu julli yor-yor ba pare comme ni ñuy jóge ci corté bi mu mu tëdd fu ne ñareet mu nekk presque ak dee ba ñëpp jaaxle ba nit ñaa ngi ñibbi waaye moom ñu ngi ci moom doom ji téye na poul bi ci poignée bi dara yëngatuwul waaye bi sëriñ Ablaye Thiaw ñëwee ba woo ko ba mu jóg ba ñu yóbbu ko kër ga dafa toog ak njaboot ndaw daal ne leen ñaan leen jàmm ci réew mi ma yàlla wan mooy deux veille lii ma yàlla wan yàll nay xiinte bu mu taw hmm. yàll na xuppaate te bu mu nekk dëkk ba yàgg ma ne a ah, sama maam day yéen ma dem yaatu na daal di mën na mën na mën na yéer daal di kon ñaan leen jàmm am ngeen ci xarkat am ngeen ci mbokk mbokkkat kon moom fa mu féete woon réew mi hmm. nit ñi xamuñu ko hmm. waaye ku yàlla mayoon gis-gis la te lu mu seen muy ñëw balaa muy ëgsi lañ ci war a def ci wàllu ñaan dinañ ko def ba réew mi am jàmm. Hmm. daana tamit départ fii boori onze heures mbaa minuit ànd ak benn taalibeem te du ko wax fan la jëm. Hmm. ñu dem romb jaar Rufisque dem dem ba jaag saaw mu dem fekk fa Alaaji Abdu toog moom waxtaan ak moom ba saa bu ko neexee mu taalaat otoom ñibbisiwaat te kenn. Hmm. loolu tamit doon rafet man mii nekk naa Mbàkke daana mu ñëw di fa di ma fa fekk ma nekkoon fa responsable chef d' agence ca banque bo muy ñëw di seeti ji sëñ ab Lahad ñuy ànd ak hmm. wax naa la léegi digganteem ak sëñ Mansour. gis wax naa kon léegi ni mu ak sëñ Abdou Aziz Sy kon nag waaw ak ni mu meloon nag également euh, la chrétienté hmm. ndax loolu ma la wax léegi. Hmm. moo tax bi mu génnee àdduna. Euh, am na benn église bu nekk aéroport sœurs yi dañoo sol seen ay robe ñëw di ko jaale si. xam nga lu ma kon nag moom c' était un homme multidimensionnel. Mm-hmm. c' était également benn citoyen. Mm-hmm. modèle. daa mm-hmm. ngi dégg te modèle de citoyenneté boobu mu ngi ko doon na ci baayam Nabilaay Issa Rouhou Laye mi daan sol ay gants dëkkoon rue Grasland bésu wote jot mu dem di wote ji Roowalaay Issa jël na otoom euh, boole koog chauffeur am Baye Issa Fall ñu dem jël madame Gaye qui était ci rue mu nekkoon sage-femme daan seet jigéen ci kër gi mu ñu jox leen oto bi ak chauffeur ñu yóbbu leen kopp ngir benn vingt cinq décembre mm. deux ans de suite loolu Rawlaye Issa mi ko yar def na mm. moo tax ñoom moom ci boppam bu ñu gisee mu def li ma wax léegi mm. kon mooy jaar na ci tànk yi euh, waajuram ya ci def lu baax ndax ak baax macha allah day dande ndax yàlla moo sàkk doomu aadama yi bàyyi leen ci àdduna booye mi ñu nekk ci ay réew ñu war a cohabiter mm-hmm. dégg nga def mu am mu amalaat boo xam ne bii cohabitation boo xam ne kenn ku nekk di servir sa morom. Mhm. ndax l'armée sénégalaise est composée de musulmans et de chrétiens. Mhm. waaye benn armée la benn drapeau. Mhm. kon amul bodd kenn fay xeet. ñépp dañoo nekk ay soldats. Mhm. ci askan woo mën a bàyyi mhm. kon nag bu bu lool amee ci armée bi yàlla wàcciñ ci kaw suuf. Mhm. dañoo war di jëflante. comme Rawala Issa nam daan jëflante ak Blaise Diagne. te bokk ñoon également wàllu diine. waaye lam daan jëflante moom ci wàllu àdduna daf daan jëflante moom Rawala Issa euh, te. lu mu war a laaj ci wàllu àdduna dakaan bintanti laaj ak Blaise Diagne loolu nag moo tax maam ren tamit meloon noonu ak kilifa gi nga xam ne ñoo fi nekkoon muy Abdou juuf ba ci bii Ablaye Wade ñëw fekk daanaka moom euh, mu ngi ci wàccaay ndax toogandoo ñu daanaka lu mat mm. at ah, wala ci la mm. euh, mu dem bàyyi ñu fi mm-hmm. waaye moo Abdou juuf nag Abdou xaritam loon mm. daana ñaanal Abdou mm-hmm. bu baax a baax daana ñaanal jabar ji Elizabeth daana ñaanal seen doom ji amee woon doom fële ci États-Unis te amoon jafe-jafe mm-hmm. mu ñaanal ko donc euh, waaw Sénégal tamit dem nañu ba président amul amul euh, lu mu fayee euh, salaire yi mu demandé waa France audience pour ñu dem ñu lebal ko xaalis ñu jox ko xaalis hmm. mu sàkku ñaan keroog membran daka ne bul dem toogal dinañ ko indi hmm. waaye ba Mamran ñaanee France ñoo yebal Concorde hmm. mu yeb xaalis bi ñu indi ko fii ñu yóbbu ko trésor hmm. bañ ko ca bëggee jox moom da leen ne ginnaaw pour réew mi la nañ ko jox nit tamit daana jaaxle ñëw ci moom hmm. euh, diis ko problème mu xaalis mu nekk ah toogal ba yàlla ñëw moo xam da ngay toog ci wetam moo xam da ngay dellu sa kër toog ka fa njëkk ñëw bu yoroon enveloppe ak lu fa mënti nekk na nekk million day jël enveloppe lu jox boo boo boo demee bu ubbi ko ñëw ci nekk ah, sa sa gisoo li nga ma defal man la def dama ne demal toog waay xanaa du yàlla la jox. Hmm. kon il était d'une générosité extraordinaire très remarquable. dafa tabe woon. Hmm. ndax nee na euh, joxe boo ko dul def sa wërsëg du yokk. Hmm. ndax nee na circulation li ko mën a boucher benn charrette mën na ko boucher ci kanam. oto yi duñu mën a dem. wërsëg noonu la mel nee na kon li ci sa loxo mm. nee na boo ko joxee li ci poignée bi day wàcc ci loxo bi mm. la woon ci conce bi ñëw ci poignée bi la woon ci mbagg mi ñëw ci conc bi mm. kon boo boo boo nangoo joxe rek yàlla di la jox moom nag <laughs> ku joxe doo am moom nag loolu daka daan jëfee mm-hmm. ñëpp xam ko ba pare mu tàggat ci ak njabootam waaye tàggat ci taalibe yi maanaam képp ku ko jigéen di nga xam loolu ci moom Mhm. waaw citoyen modèle la woon euh, ci réew mi ci Sénégal waaye itam euh, ràññeeku ca bitim réew ndax États-Unis euh, élevé nañu ko au rang de citoyen d'honneur de la ville de Philadelphie en 1998 lan moo ko may loolu kilifa diine ci Sénégal dem ba États-Unis di la def citoyen d'honneur oh, oh, waaw c'est parce que waa États-Unis dañ ñëw fii waa fii di dem États-Unis mm. ba des relations juddu fa moom it entretenir ces relations en vrai mm. nest pas Euh, mu nekk ay ay relation yu àdduna comme li ma doon wax léegi loola moo ko jural lu ne mel waaye également yoonu màkkam ba mille neuf cent soixante deux loola tamit yàgg na boobu bato la ñuy voyagé waaye foofu tamit am na loo xam ne mandarga la bu feeñ ca màkk dégg nga maam ndax dafa ànd ak délégation bi nga xam ne bokkoon na ci alaaji Paala Mbay mm. doon loxol ci Tidiane si waaye bokkoon na ci alaaji Maada Seck bi nekkoon RTS bokkoon na ci imam Mouhamadou Sakhir euh, suñu ustaas boobu dëkkoon yëmbal bokk na ci Baye Ablaye Gote bi ci coom dëkkin Cambérène ak soxna Ami Kolle Sow ab lawbe te taalibe laaye mm. ak ñeneen bañ demee ba dal ci kër euh, ci bañ dem ci shérif ba ñu dem pour présenter la délégation sénégalaise mm. shérif bi bi ñuy présenter ba egsi ci moom la ne kii bu leen ma présenter kii leer yonante gi mu ngi euh, mel xat ci moom kii man ak moom ñoo bokk menn maam ñoo bokk benn deret te fii ñu toll temb moo ma gën a jigéen maam boobu ndax maam boobu mu nga saw jant boobu mu ngi def allusion à maam li maamu laay nga mën a démb mën a tey kon nag moo tax mu ne sur le plan hiérarchique ci rang ci silsila moo ma gën a jigéen loolu 1962 la bi ñu ñibbisee ñoom ñëpp délégation bi dañoo dem Alaaji Maade moom ak nettali ci seen amajoon waajuram mi doon xalifa en 62 moom lañ ñëw nettali ko xibaar bi muy mandarga boo xam ne bii également ci baatin fësal nañ ko foofa ci kanamu ay nawleem ca màkk pour wan ko rek sa maam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag macha allah kooku dafa baax à point de vue dafa am ay relation xeebul mindeef ndax daf lay xoole simplement doomu aadama et en tant que tel créature yàlla nga moom mu jox la ma ak respect waaw ah. respect buy imposer respect mm-hmm. amoon na xëy ba maanaam boo jàkkaarloo ak moom xool ko di nga am loo yëg sa bopp mm. ah, ca melowa mm-hmm. ca kanam ca xoolin wa waaw. Mm-hmm. kooku mooy Mame moom la ñuy waxtaanee tey xalifa bi làqu ñaar fukki uh, fan ak ñeent weeru avril atum 2001 uh, uh, li mu toog ci xilaafa gi yëpp Euh, lan nga jàpp ni wala lan la ñu mën a téye ni moom la yokk ci yoon wi Seydina Limaamu Laay euh, rëdd lan la ci Mamran euh, jouer comme partition. waaw ñoom mooy xalifa bi fi toog da li sa maam wax. ci xutba yi li mu digle ak li mu tere say kàddu mënul génn champ boobu ak la ca des mooy lan mooy rafetal rafetal jëm ci bokk bi rafetal jëm ci réew mi. rafetal dem ci këru diine loolu moom la fi seen maam nekke woon moom la fi seen baay yi nekke woon moo tax ñoom tamit bi ñu toogee même rôle boobu la ñuy fu ñuy wax fu ne dañuy wax ci li seen maam wax waaw loolu mooy li nga xam ne ni mooy d'abord lu essentiel mhm. xutba bi mhm. moo digle moo te ndax bàyyi laay seen maam alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne bu ngeen gisee ku ma ëpp lu mu digle ci lu baax mm-hmm. gis ku ma ëpp lu mu tere ci lu bon mm-hmm. mu ne bàyyi leen ma te dem euh, ko mm-hmm. moo tax nag kon day doy sëkk li seen maam digle ak la mu tere tolloolo lépp méngoo ak alxuraan mu kari lan moo gën a fës ci xilaafaam gi bi mu bi mu fi nekkee lan la def loo xam ni daal. non euh, mais mais lu gën a fës bokk na ci jàmm ji ma la wax ne. Mm. woote naka homme politique yi. Hmm. invité leen ci. ba pare doon ko ñaan guddeeg ko ci. bokk na ci la fay tàkk-tàkk bi amoon suñu diggante ak Mauritanie en hmm. quatre-vingt-neuf. waaw ñu ñaan ke lépp ko dal ci bés boobu. Hmm. rayant ki bi ci des naar yi daw bàyyi fi seen boutique yi. nit ñi euh, di vider boutique yi. waaw. moom mu woote ndigal ne képp ku jël dara ci biir indil ma ko fii. kër ga fees dell ak marchandise denrée. waaw ndax mu ne bu leen ko lekk. ndax moom bëgguloon kuy lekk lu araam ndax nee lu araam boo ko lekkee ëllëg moom lañ njëkk xotti ci sa biir mhm. kon moom dafa doon sellal bëgg nit ñi sellal daf doon sàkku it ci nañuy jaamu yàlla ndax yàlla mayoon na ko ci baat muy vérifier mhm. jàkkee laayeen yëpp te wax na ne képp ku fi toog di di nga ko def mhm. muy wax nag li observé dans les mosquées ci ay toogin ci ay jëfin mhm. ak ci wàllu rukkoo yi maanaam sart julli yi mhm. ñii ni ñuy rukkoo ñii ni ñuy sujjoote mhm. ñii ni ñuy isolé woo wala ñu bokk naa la masse loolu yëpp def ci doon apporter ay correctif dégg nga ci bépp péyu laayeen te ndaxam jógul dem ci jàkk ji pour xam la xew waaye dara ump ko te wax naka na dara ump ma ci ca yooyu kon orthodoxie moom la doon inspiré taalibe yi moom la doon wax suba moom la doon wax ngoon ak li maamam wax ne euh, de leen lekk lu teey di naan lu teey di war teey di sol lu teey hmm. mu ne lu teey mooy dagan hmm. kon noonu laayeen noonu la war a comporté woo moo tax bés mer na ba ne incha allah bala may dem hmm. dinaa wax ba nga nekk dëgg dëgg laayeen loolu tamit kon moom orthodoxie moom la doon doxal bëgguloon ku laal alalu jàmbur. Mhm. ndax loolu musiba la te maamam moo ko wax ci xutbaam ndax moo ne benn tuddu deret yàq na bagaanu soow. Mhm. jëf ju bon noonu lay yàq jëf ju baax mhm. baax. kon loolu boo doon yëy gerte ba yaale benn bu nëb di buus gert yëpp te benn bu nëb boobu la ko yebal wala ko moo ko jural mhm. noonu la alal ju bon di yàq alal ju baax mhm. kon sellte googu maamam digle mhm. moom mu ngi woon à cheval ci sellte boobu muy si boobu bëggul woon kenn loru bëggul tamit kenn lakk dégg nga maanaam boo gisee mu lay yedd dina xupp rek bu pare sax dina la jéggalu amaana ndax mu ngi lay bañal pakk pakk mu ngi lay bañal yàqu la ëllëg. Mm-hmm. mu ngi lay bañal euh, fanaan wala nga yendu ci bàmmeel. Mm-hmm. te dangaa war buñ la yore rek nga dem nee na ab laayeen pire. Mm-hmm. gàcceem mooy ñu suul la nga war a dem nga def fa des. loolu daf ko daan ko daan wax ci suñu nopp ñu di koy dégg. kon loolu lu remarquable la. ak tamit am na ñoo xam ne ñii moo leen doon jox. ab dépense te duñ ko yëg ku ñi ma woon njabootam ndax ay dafa yor ay doomam yor ay soxna mu yor leen yoraale seeni soxna maanaam di leen joxe dépense kenn daaw ci génn dërëm. waaw loolu day bëriwul waajur yi koy def. bariwul bëriwul yor ay doom yor ay. soxna boo sampee kër moom yor gi wàcc na leen. waaw moom nag daf doon yor kër gu mag yor kër gu ndaw te kër gu ndaw ay doom ñoo fa nekk yor fa seen ay jabar ak seen ay doom bi ay sëtam. Mm. waaye mu leen di joxe dépense ñoom ñëpp. Mm. moo tax mu daan wax naan man yàlla rek moom ma attan. Mm-hmm. doomu aadama at waaw ñu def attul. Mm-hmm. yàlla rek moo ma attan ci sama barkeb maam. Mm-hmm. kon moom. lu lew lu dagan mhm. li maamam santaane moom ci loolu la nekkoon te képp ku mu yar wala ku ko déggal ku ne mhm. boo tegee kooku sa tànk doo ko rëccu mhm. ëllëg doo ko rëccu waaw comme ñi nga xam ne ñi dañuy omal te li ñuy oomal dara daganu ci dara lewu ci ñu ñoo ñoo loolu nag lu mu taaru taaru taaru day mel ni am ñax mu sax ci ab sën mbaa mbaam xuux mu fonki ba rëy wala muy lekk dara baaxu waaw loolu nag moo tax mu ne mbërës mbërës biir baa xam ne euh, euh, li muy rëy yëpp la ci nekk nag nee na mbërës biir ba waaye mbërës borom biir ba hmm. waaw kon loolu la maam doon jàngale. alors cent septième anniversaire appel Seydina Limaamu Laay Almahdi mu yëkkati ca kàddu yu am solo kàddu yu ñu bari dul fàtte fukki fan euh, weeru avril atum dix neuf cent quatre vingt booba ma nga nekk xalifa mu tombe woon ak itam ñàkkul événement Mauritanie ndax ci période boobu la euh, lan la waxoon loo xam ni daal euh, keroog yëngal na réew mi yëngal itam ña ko déglu. waaw ca appel ba quatre vingt huit jàppuma exactement. d'accord. terme ya mu fa wax waaye moom moom ay waxam euh, xanaa daal li mu sàkk woon li mu remarqué woon quatre mu sàkk woon ci sëñ Ablaye hmm. mooy euh, man Ablaye lay waxal mu wax ak yéen hmm. sama gémmiñ ci nopp Ablaye gémmiñu Ablaye ci yéen hmm. waaw maanaam doxale wuloon kenn accepté wuloon kenn ku dul sëñ Ablaye Thiaw mu nekk interface am digganteem ak taalibe yi bu waxee ablaay Ablaye Ablaye nag mooy wax ak sakkoon na ci sëñ Ibrahima daana bari daan dem ay tukki mu ñaan ka nag bul tukkee ci toogal fii hmm. waaw toogal fi waaye nag daal di nag xar na ku ko yeew war koo gubal am xar hmm. ku ko yeew ba mu dox mu ne war koo gubal hmm. daana sàkku ci taalibe yi nag pour nañuy teral kër Seydina Limaamu dañ leen di teral waaw loolu moom daana wax tamit yàlla bàyyi na fi gis ak dégg bàyyi laay bàyyi na fi gis ak dégg waaw. Mhm. gis a dégg. mooy kon nag moo mooy da daana gis mën na nekk fii gis la ci yëmbal mbaa mu gis la ca Kayar mhm. mbaa mu gis la ca bitim réew dégg nga mhm. waaw mu mën laa jaj bu la waree jàjj def nag ab sëtam ci ku nekkoon Espagne mu ne mu nekk salal boobu wëlbati butik mu féete penku te mu ngi toog fii wax ak moom téléphone wax ko waaw nii man daanaa ñëw mu ne ma nii ma jàkkaarloog télévision bi noonu laa jàkkaarloog yow mm. kon nag gis-gis am na ko mm-hmm. waaye dégg-dégg tamit am na ko ndax nit ñi dañuy waxtaan ci grand place yi lañ fay waxtaan bi ci noppam mu leen ci yedd mm-hmm. waaw ak di moytu ñuy jëwaate kon maam raan jikko yi rafet rek la doon inspiré moom la doon inculqué moom la doon waxtaane moom la doon waaraate waaw mm-hmm. am ak biir lool waaw lool waaw daana wax ne man awma xol hmm. ndax dañ ko monté loon sax benn kër artificiel hmm. buy baat moo tax ñu génnee àdduna ñuy dégg battement bi ñu defe ne deewul mu ne leen ñu nekk liñ ko monté ci benn bi te américain yi ñëwoon sax defoon fii euh, kii opération à cœur ferme hmm. waaw kon moom ci wàll googu ci nit tubarkàlla eh. macha mm. allah. mu def aussi liggéey bu am solo bi mu toogee ndax euh, xutba Seydina Limaamu Laay yu ci baree bari daanaka wala yëpp euh, ci la fexe ñu traduire ko ci kàllaama yu bari bokk na ci olof ak anglais ba mu gën a tas ci àddina loola itam lu lu am solo la ci yoon wi. waaw parce anglais bi comme amoon na taalibe boo xam ne bi anglophone la dëkkoon Tëngéej ñu ko wax Bachir Seck mm-hmm. xaritam la woon ndax xaritu doomam la. Euh, miinaloon na ko it boppam te kooku daana gunge shérif hmm. doon ci ay tukkeem États-Unis ak yu demee hmm. kon lépp loo xam ne dafa jëmoon ci yaatal hmm. daf ca daal di topp la magam di bàyyi Sëriñ Thiaw daan def ndax xutba yi bu ñu ko traduire en français jamonoy bàyyi Sëriñ Thiaw professeur Assane def ko Busral mooy bi na di euh, la vie exemple de Seydina Limamou Laye ci arabe moom mi ñu traduire ko en français loolu ci baay Sëriñ Thiaw la tàmbalee ak lijjanti yi ñu war a am bourse ñu am bourse pour ma dem tukki maam ran daal xam naa ne ay action moom dañ ciy jël les plus essentiels mm-hmm. waaye ay ay ay jëfam mm-hmm. ak ay mbir yu yéeme yu mu def euh, feeñal te mbirum baatin bari na yëpp kenn mënu ko wax am na yu sax boo ko waxee léegi ñu yaakaar ne yow xam naa Euh, dangay yokk da ngay tenter di jéem a yokk dimension spirituelle waaye fu ñu takk tamit weesu na foofu euh, ndax n'est pas xalifa kii ba mm-hmm. waaye tamit wax dëgg yàlla daana wax naan man maay ñeentel bi xalifa mm-hmm. xalaat naa sama ginnaaw mm-hmm. bés ma fi jógee ba am ñaari at doom dina ma jooy taalibi dina ma jooy jabar dina ma jooy te na ko waxee woon noonu la amee ndax c'est un homme disponible boo ñëwee fekkee ci param mu toog le matin fa lay yendu ba bu duggee tuuti day dallu génnaat toog ndax mu ngi xalaat ba timis di jot ka nga xam ne kii da kaa ittewoo bàyyi koo ba te banlieue ba wala feneen. Hmm. ñëw ba ëgsi te mënu koo gis. kon moom lool la ko déedéet da doon xëy comme xalifa yi ko jiitu toog ci perron bi foofu la mu toog ci ëtt bi. Hmm. ku ñëw fekk hmm. waaye ci ku ñëw fekk fa jooju nag. mu nga cay tàbbal yërmande ndax yow boo jógee avec l'intention de le trouver de le voir. la nga koy nga ñëw manoo jot ci moom ñu ne tëju na moom tiis woowu lay la doon éviter di tiisoo moom la doon tax mu daan sacrifier boppam mhm. bay sacrifier euh, wérgu yaram mhm. waaye disponibilité am ak mbaaxam googu à la disposition de n'importe kii mhm. man mii war na ma ko 1983 booba nekk gul xalifa ma nekk Soumbédioune comme chef d'agence ñëw ci weeru koor yi di ko fekk muy nelaw man leen bu yeewoo ngeen nuyul ma ko bu leen ko déranger. Hmm. bañ ko ko waxee ba ma dellu see daf maa yu wax ne ma lu tee nga yeema ma dama doon dara mu ne xanaa du ma nit xanaa du ma nit. Hmm. nga yeema ma jóg xool la ba ma ne loolu keroog wax na ma lu mel noonu. Hmm. waaw. macha allah alors foofa la ñuy jaaree dugg ci ponk bu mujj bi euh, mooy bu ñuy waxtaanee kilifa yu mel nii euh, dañuy euh, dikkaat bu baax a baax ci seen ay jikko ci ay mbir yoo xam ne daal jàpp nga ni ñii fi ne tey ak ñii ñëw ëllëg. Euh, war nañ cee roy bu baax a baax ndax njariñ lay doon ci ñoom yan jikko ak euh, yan melokaan yu maam raan nga ñu mën a limal yoo xam ne jàpp nga ne lii moom xel dañ koo war a roy muy taalibe yeeg euh, ñi fi nekk tey ak ñiy ñëw ni ma ko waxee. ah mooy lim daanaka wax naa ci sama. waaw tàmbali nga kay tàmbali nga waaye léegi dañ koy jeexalee nag lim ko te jee ko waxtaan wi. waaw moom. Mm-hmm. ku ñeme njaboot la. Mm-hmm. ku bëgg njaboot la. Mm-hmm. ku bëgg bokk ak mbokk la. ku bari yërmande ku tabe la ku nangoo muñ la lu dëgg mhm. te yàlla samay gaay lañ mhm. way muñ mhm. moo tax bàyyi laay alayhi maamam waaw maamam tamit indil ñu histoire yonti yàlla ayoba ak soxnaam sa raxmata ca muñ ci feebar dix huit ans ak la ci aju yëpp muñ googu bàyyi laay indik ki ci xutba bi pour bëgg ñoo jàngal lan muy muñ moo tax moom mu nekkoon également nit ku woyef woyef gi mooy du wane boppam du wane mbartabaam waaw ndax daana wax ñenn ci ay nitam man mi bokk naa ca waxtu woo ma soxlaa fëggam du dëgg mm-hmm. daana defit ci bëgg a bokk googu te man maa jur mbokk gi mu rek mbokk ak man di mag ci man mm. ma ñëw mu ne ma toogal ci kaw ma nekk suuf baax na mu ne ma mukk insisté bi ba ma toog ci kaw mm. ku ñëw ci njaboot mu ne ndax nuyu nga sa kon mu ngay jàngale mm-hmm. waa tu dëgg waa mm-hmm. li ma wax sànq it ci orthodoxie bi maanaam fexe ñu tënku ci lii maamam santaane mm. te sori lii maamam tere ak ci biir jëfe gi daana wax ne te loolu dëkk dëgg-dëgg noppam moo ko may hmm. mooy ñii wax naa man day wér di mën naa kaa def ci vingt cinq mille ñi naa man ci vingt mille mu mel ni course hmm. mu ne bàyyi leen di chronomètre chronomètre wér di hmm. maanaam def ko te bul imposer sa bopp benn timing du la ndax daana wax ne ñaan euh, caabi bu duggee bu ëpp du ubbi bunt bi su duggee ca cate du ubbi bunt bi loolu mooy kon ñaan di ci dem ci benn cadence rythme boo xam ne bii du caagi na course de vitesse waaw daana wax man mii wax na ma ka ne kilifa du daw du daaw kon da ngay dox dox bu digg doomu bu normal bul taxawaalu di ko tendeefal waaye tamit nee na bul daw nee na loolu du war mm-hmm. kon daal modèle la woon ci wàllu jaamu yàlla modèle la woon ci wàllu uuf sa njaboot modèle la woon ci wàllu joxe modèle la woon ci wàllu muñ comme ni ma ko wax léegi. Mhm. waaye modèle la woon ci dox ak bokk. Mhm. modèle la woon tamit ci euh, gérer mhm. ay relation waa ndax seqante woon na relation ak ñu bari ci réew mi dañoo ñi ci ëpp duñu ay laayal ñenn ñu bari su ma yeboo ma ne taal na leen su ma taal na mooy ñaanal leen ñaanu ubbeeku goo xam ne gii seeni mbiru fa la xéewaloo ba faw te loolu moo leen ko defaloon du dëgg ci ndax kii laayeen la wala du laayeen. Mm-hmm. waaw ndax loolu tam fësoon na lool ci ay mbiram ndax bari na lu mu def te te te bëggul mu fës. déedéet du du bëgg ku ko ko wax waaye daawul bëgg it ku ku moom ci nit ñi feeñal martabaam. Mm. waaw ndax dara wax man nañ ma bàyyi noonu rek. Mm. ba ëllëg waaw doon daawul bëgg jéem wane boppam. Mm. ba li nekk moom yëpp dimension spirituelle yow du ko bëgg a yow kay dafa dem après ku ne di soog rëccu mhm. te waxoon na ko dafa wane ginnaaw tey jii ñëpp di ko rëccu ndax koo xam ne ci ci ci sa perongam la doon toog mhm. yëkk nga woote téléphone kar mu décroché mhm. en tant que xalif ma na nañ may décroché secrétaire ak nangam nangam waaye moom ci mooy wuyu bu la soxlaa it moo lay woo ak boo mën a am na moo xam euh, kii nga chef de kii d'organe de presse nga n'est-ce comme Sidi Lamine Niass hmm. dans le temps yàlla na yàlla doolu xew hmm. hmm. waaye en même temps président de la République ministre procureur ñëpp moom foofu la doon toog di wax ak ñoom war a waxal ñëpp lépp lu mu réglé ci programme boobu la ko doon bu fekkee moo wootee dina présenté na man la Seydina Maam Alassane Laye xalif général des Layènes kon dafa defoon boppam rek nit d'abord waaw te fekk ndaxam xam li yàlla dëxën ci moom bari waaw kon loola la ñuy jukki tey euh, ci euh, maam Alassane Laye euh, maam Raan moom la ñu hmm. doon waxtaanee tey fàttaliku ko hmm. ndax bës bi mu làq woon dellu si na barki démb di ñaar fukki fan ak ñeent weeru hmm. avril atum 2001 ñu jébbal ko borom bi ci njëlug ñaar fukki fan ak juróom muy 25 avril bés booba la ñu bari jàpp ne ci la làqu ñu doon ko waxtaanee jéem a fàttaliku itam yenn ci ay njàngaleem ngir li borom bi wax ne fàttali dafay jariñ ñi ñi nga xam ne itam lu baax la ñu euh, soxla bu ñu déggee waxtaan wi ñu fàttali leen li Mame Rane daan def dana leen yokk lool dana leen jariñ itam dana leen fàttali ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Laye Seydina Issa Laye Diop nga bokk ci cellule communication bu communauté Layène ñu lay gërëm euh, ci disponibilité bi gërëm itam Pape Maguette Laye mi nga xam ni daanaka euh, ci moom la yëf yi jaar ma bàyyi la rek nga tàggook ñi ñu doon déglu. waaw xanaa di la gërëm yow moom nga xam ne yaa dox émission bi ak di gërëm Pape mag mi la booleeg man di sama rakk di sama jarbaat euh, di bokkam taalibe euh, ñu seq communication bi waaye également di gërëm mbooleem auditeur rajo réew mi FM di koy taataan di koy teewlu di koy déglu waaye di sant yàlla subhaanahu wa mi nga xam ne mooy buur bi di julli ci yonentam bu tedd bi maam Seydina Limaam Mahdi ca ba mu weexee a bi mu ñuulee muy démb tey waaye di gërëm euh, mboolem waa réew mi yëpp di Sénégal di fi doolee ñaan jàmm ji nga xam ne kii ñuy waxtaana jàmm jooju dong fi bëggoon mm-hmm. kon yàlla na yàlla doole fee saxal jàmm réew mi doolee jàmm te doolee am ay xéewal doolee am taraanga waaye yooyu suñu borom ba fay la ndax tax nga ñu jeqar bi lenn ci ay borom jikko yi rafet neex euh, nettali mm. ba amaana euh, nit man caa inspiré wu mm. ba man caa doxee sax amaana baax ci jëm ko roy. jërëjëf kon ñu ngi lay gërëm di la sant wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa jërëjëf Laye Mactar ñu ngi lay gërëm gërëm ñu doon déglu euh, di fàttali ne émission bi mun nañ ko teeluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officiel Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi feggoog jaawo jàlloo ci jàppandal gi ak Léon Paul ñu ngi leen di dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen di leen ñaanal kenn dal ak jàmm